waa mais mbër. nuyu nañ la. fay la. tur bi naka la. usine technique wala nga ne Abdou Tine bu Ngunjaan. usine technique Abdou Tine bu Ngunjaan daa lambu bi Mali yow yaa jëloon. waaw lambu ji Mali waaw maa jëloon. ah nga jëlee Ngunjaan ba mbettit ñëw compétir si. gis nga de nii la demee woon daaw fii poids léger yi maa ko jëloon. Ah. ren ma ñu egg bi final ko. Ah. kon maa kontaan bu baax daal. di sant waa mbettit bu baa léegi ki nga war a ah dégg naa turam waaw. Ah. waaw dégg naa turam. ñu gis ne daanaka favori yi si nekkoon si lamb ji yaa leen génne ba yegg si final noo fas yéene bëree final bi. waaw xanaa comme ni ma bëree gars yi rek noonu laa fas yéene bëree waat encore rek. Ah. yàlla may ma ndam ci kattanu yàlla moom laay ñaan daal. loo wax say ak ñi seetaan. samay supporters fan si club usine technique. maa leen di gërëm di leen sant bu baax. aw ma seen fay ndax dañ may jàppale carrément fu may ji dem nii kontaan si moom chaque jour dama leen di suivre ci seen mbër a faa mbër a ngi nii. waaw léegi rek Lamine. foofu jam foofu jam kay. Famara va simal en finale contre usine technique andaxe mabritida non non il mose mabir koy ah e gana lal usine technique Abdou Tine a jon ngunjan ah waaw waaw wat simal bo mbetit compétirit ah. e fadi yona finale xar yego mi content rek ah. aha content paax a paax ndiki nam fas yéene mabrit finale fe finale fe ah. na ful lo fayda rek aha xeɗa o yaalo yit yaamo ten na jam bégg a supporteur ke mi a paax axa surtout fan sikolo pe quoi bégg a wasimal tuutu wasimol leŋ bo pambin tout wasimol leŋ quoi i eh, moƴa content na took ménagère ke mi Casamance quoi axa o nan nena Madou Diouf axa mais bégg an a paax eh. a paax i aca le meilleur gagnant axa ah, merci Lamine a mosa ah. jaajëf ndeysaan final ba i noonu fii ci Mbetir dimanche le 16 janvier 2022 su ma nekkee mbetit nag ndeysaan xel day dem ci sama grand Sidi Ndour maa ngi lay bëggee waaye Baye Thiam Ndour maa lay siyaare Xaadim wala DJ Xaabu Mboy ak Lum maa ngi lay bëggee Alphonse Thiaré ak Paul Thiaré ñooñu waa groupe Ndiom 100 pour lañ bëggee naa leen. Alphonse Paul ay doobu Béthune lañ Famara Bassimal à droite Usine Technique bu Ngoundiane à gauche sama dooma Lamine bu Ngoundiane bëgg naa la waaye sama grand abdourahman Ndong Simal maa ngi lay siyaar Famara jël na ko eh. Usine Technique sol na ko naax sol na ñaari naax yi ñu xool li muy def jéem na koo plaqué wala wéyale mu bañ Famara jàpp na si téere yi ñoom ñaar ku ne ma mosul bëre moromam usine technique bi la mujj mujjee teg avant corona bi moom moo fi jëloon poids léger yi tey mu ñëw yeeg poids lourd. Faambara Faambara jàpp na si njambul yi sol ko Abdou Tine ndeysaan moom moo jëloon lambu Mali ma sati sama grand Mayakor Tine monsieur Tine doomu Ndiol professeur te lycée bu Joal ne ma le Tine sont forts monsieur maa ngi lay bëggee Mayakor waaye Albert Ndiaye maa ngi lay bëggee borom Ndooba Ndaan borom Njanda nekk ca Casamance Famara ndeysaan Aliou Badara Ndéne doomu Tataguine nekk ca Casamance soriw ma sa dëkk de waaye ndeysaan waa brigade Bunkiling sama gendarmerie maa leen di bëgge de Abdoulaye Sow gaynde tey si yow laay gaynde maa ngi siyaar ca Bunkiling Pape Doudou Diouf bëgge naa la sama doom baay Abdou Ndong maa lay siyaar su waxee ay gendarme ndeysaan mun waa foote sama gara Mamadou Faye jaxale gendarme borom ko ba mooy séeréer ak Joal Fadiouth ma ne la ma baay daaru waaye Aliou Sow gay ko le filik maa lay bëggee di bëggee Moda Diouf borom anniversaire ba ca Saint-Louis eh naa la borom daaf.